ñi ngi nuyu mbokk yi teew ci jataay bi yëpp ak mën a nekk ak ñi nga xam ne teewuñ ci jataay bi te dañu déglu wala ñu duñu seetaan di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ndokkeel ci guddi gu tedd gi di ndokkeel jullit yépp ci guddi gi nga xam ne mooy guddi gën ji mbindéef sallallahu alayhi wa di sant yàlla sunu borom tabaraka wa bu baax a baax di ko gërëm ci lim ñu mayoon daaw ñu teew mu mayaat ñu ren ji ñu teew fii ngir dundal guddi gi nga xam ne mooy guddi gi bi sallallahu alayhi wa sallam daaira muxaddamatul xidma ak daaira rawdu rayahin ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ànd di ko dundale fii ci barab bi ci jumaa ji ànd ko ak bokki taalibe yi ak bokki jullit yépp niñ leen waxe woon bi nag ni mu doon tëddee incha allah nga xam ne biñ jullee gee ba léegi Euh, sëriñ Cheikh gay Mayit jàng na fi sëriñ Bolle Mbay moo doon jàng léegi ak kuréelu bu tu tànk Muxaddamatul Xidma ñu ne woon bu fukki waxtu ak benn jotee incha allah danañu indi waxtaan wu am solo woo xam ne dañuy indi ay bind rek di fàttali e, ki nga xam ne moom la ñuy fàttaliku mu yonente bi sallallahu alayhi wa xam ngeen daaw ci kàddug sëñ Mbàkke Abdourahmaan waxtaane woon nañ fii yonente bi sallallahu alayhi wa ak ay waa këram muy soxnaam tey jii nag ñu tànn war a waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay sahabaam mooy ñim àndaloon ci woote bu tedd bu mag boobu ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ci woote suñu borom bi tabaraka wa taala te doon ñu mat a fàttaliku doon ñu mat a waxtaane kon ren jii suñu waxtaan wi ñu war a waxtaanee ci bind bi ñu war a joxe ci fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi dañ koy jagleel yonent bi ak ay sahabaam ki koy def nag mooy sëriñ na Mbacké Abdoul Wadoud ñu miin ko ci jataay bii ci jumaa ji miin ko yit ci fu nekk ci liggéeyal lislaam ak liggéeyal yoon wi ci xam-xam ak gëstu ak yeete ak jariñ jullit yi ci xam-xamam yàlla na ko yàlla may kàttan te may ko wér euh, incha allah su waxtaan wi jeexee ñu tàmbali waxtaan wi dana dem ci benn waxtu bu noppee ñu tàmbali liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a fanaane incha allah muy ci minuit wala minuit nangam incha allah ci nit niñ leen ko waxe woon ci fas yéene dundal guddi gi ni ko sëriñ bi daa dundale ci barab yi mu doon nekk muy ñetti kuréel yi jës bu mooy bu muqaddimaat ak euh, barsan ji ci njiital sëriñ ahmadul badi yu mbakke mu cheikh ahmadul fadal ak sëriñ afiye bu sa imam ak sëriñ abibullahi jatara kon noonu la guddi gi fas yéene deme noonu lañ ko fas yéene fanaane yàlla nañu sunu borom nangul te defal ñu kàttan bañ joxe ko nu raw niñ ko defee woon ci at yi yëpp kon dañuy njëkkante ak waxtu wi jox euh, kàddu gi sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud kon sëriñ bismillah الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu mbokk yi ak képp ku sunu kàddu di àgg ci moom fu mu mën di nekk ni ko sëriñ Abdul Ahad waxe rek kon waxtaan waa ngi jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi nim nekke woon ak i saxaabaam muy ay àndandoom ñi ko gëmoon ànd ak moom loolu nag day lu jara waxtaane li tax mu jara waxtaane moo dina yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mooy royukaayu jullit ñi mooy royteefu jullit ñi ci wàll yépp wàll gune jullit bi yonente bi la ci war a def royukaayam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàllaa ko wax ci alquran laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyawma al liman kaana yarju llaha wal yawmal axira wa dakara kasira mu ne kon yonent bi mooy seen royukaay loolu kon bokk na ci li tax waxtaane tomb bii doon lu am solo yonent bi nag bu nekkee royukaay jullit ñi ci wàll yépp kon dana jaadu nuy nafar ak dundam ci wàll yu wuute ndax loola mooy tax nu mën koo roy ci wàll gune bu dee ci wàll gii nag ñi nga xam ne dañoo doon ay njiit ñoom it dañoo aajowoo xam nu ñuy royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàll ga ñu féete nekk gi ñu nekk njiit lu ñu ci roye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yooyu yëpp tax na ba waxtaane tomb bu mel nii doon lu am solo doon lu ko jar yonente bi nag mook saxaaba yi liñ ànde woon li ko lal mooy mu leen di gindi di leen jubbanti di leen jéeme ci lépp lu leen di may texeg àddina ak texeg alaaxira loolu moo lal diggante yonent bi ak saxaabay yi mooy àndoon ak moom yàlla moo wax ci alquran ne ko ci nit ñépp laa la yónni nga doon kuy bégal nit ñi doon kuy xupp nit ñi itam wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nadira walakinna akthara annaasi laa yaalamuun kon di déggale ak xuppe mooy li nga xam ne moo doxoon digganteem ak saxaaba yi moo tax yàlla yónni ko loolu itam ci la waxee ne képp koo xam ne nangu naa jaar fi may jaarlu dana taxe waaye ku fa nanguwut a jaar nag feneen la jëm feneen la jëm dane sama xeet wépp danañ dugg àjjana ku dul ku bañ ku lànk ñu ne ko kan mooy lànk dugg àjjana mu ne ku ma topp dana dugg àjjana ku mooy nag dafa bañ kon euh, topp ko mooy maye ak texe ñàkk koo topp nag moo koy xañe yàlla nu ci musal kon loolu moo lal diggante bi doxoon ci diggante yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi diggante boobu nag nim mu ci ànde woon ak ñoom dañ ci tudd rek ay tegtal ni nu ko waxee ndax ñi nga xam ne ñoom it am nañu ñu jiite mën a roy ci moom ci anam yooyu yi li ci njëkk mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xëroon lool ci lépp luy jariñ ñi mu àndaloon te mooy saxaaba yi kon lépp lu leen di jariñ dafa xéro da caa xéroon ngir mu am daa xéroon itam ci moytuloo leen lépp ci fanqal leen ci fegal leen lépp lu leen di lor loolu ci xeet xeetam wépp la ko amee woon xeetam wi xeet wi mooy ñi ko yàlla yónni mooy xeet wi ko yàlla yónni ak rawatina nag ña ko ca nangul waaye xër gi moom ak bëggal leen lu baax ñoom ñëpp la ko jëme ñi ko nangul ak ñi ko nangulut waaye ñi ko nangul nag dañ caa rawati yàlla koy wax ci alquran mi ngi nuy won ni mu xëree ni mu xëre ci nit ñi du rek jullit ñi waaye nit ñi muy xeet bi ko yàlla yónni ni mu xëre ci ñoom ba lépp lu lu leen di lor day diis ci moom laqad jaakum rasulun min anfusikum harisun aleykum bil muminina raufur rahim am na yeneen bërëb yu muy wone yonent bi bu daan woo nit ñi ñuy bañ a wuyu ñu koy bañ a wuyu ñu ko daan nettee ba yàlla sax di ko ci defal di ko wax ne nag ak gut foofu ak gut foofu yow leeralal leen moo la war ku la ci wuyu baax na waaye ku ne ci wuyu itam ne wàcc nga bu ci nag di teg sa bopp lu lu lay lu lay luy diis ci yow wala mu lay lor dama naan ko nit ñi nag loo xel xel ci seen ngëm nag ñu ci ëpp moom duñ gëm wa ma aktaru naasi walaw xarasta bi muminin di ko wax ne da nga xaw a gaañ sa bopp ngir ñàkk guñ la gëm ñàkk a gëm guñ ñàkk a nga andi fa laallaka baaxiun nafsaka ala athaarihim in lam yuminu bi hada naan ko nag bul gaañ sa bopp bul teg sa bopp aw tiis ak mettit ngir lu ñàkk gëm fala tadhabu nafsuka alayhim xasaraat inna allaha alimun bima yasnaun loolu lépp ko day wane rek ni mu ci luy jariñ aw xeetam xeet yépp moom ci boppam mu wax ne sama diggante ak yéen dafa mel ne rek ku taaloon ab taal ñuy naaw di tiim taal bi di ko wër di ca man ma leen di jéem a di leen jéem moytuloo taal bi mu ne noonu lañ demee mooy kon sama coono bépp rek mooy lu leen musal sama coono bépp mooy leen musal am na ñoo xam ne day mel na ñoom dañoo bëgg te mu mooy day wane xër gi mu xëroon kon ci lépp luy jariñ ñu mu àndaloon lu leen di xëccal njariñ ak lor na ci li nga xam ne ku doon njiit war na ci yonente bi sallallahu alayhi mooy xër ci luy jariñ na nga jiite lu leen di xëccal njariñ ak lu leen di jañal lor nga xam ne seen mbir daanaka mooy loo luy nekk ci sa xel foo toll loolu bokk na ci li ñu war a njëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leneen ci topp nag mooy am yërmande moom dafa nekk jikko ju sax ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla ci boppam moo wax ne li tax ma yónni la ci nit ñi mooy rek yërëm gu ma leen yërëm rek ak nga nekk yërmande ci ñoom wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin xamal ko na it yàlla moo la dimbale ba nga am yërmande ci nit ñi te boo ko amutoon duñ la ñeme ba nga leen di mën a jariñ fa bima rahmatin min allahi linta lahum wala kunta faddan galida alqalbi lan faddu min xawlik faafu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fi l amr fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin moom ci boppam mu waxal boppam ne yërmande la moom innama innama ana rahmatul muhda yërmande laa ju leen yàlla may ju leen yàlla andil ju leen yàlla jox yërmande jooju am na rek ay misaal yu koy firndeel bokk na ci di soxna Aïcha wax radiyallahu anha wa ardaaha li mu wax na yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saa buñ ko masaa saa buñ ko masaa tànnloo diggante yaari biir moo yaar taxaw nañ yoo xam ne daal benn mu def bii mbaa bii bu demee noona rek la ca gën a jàppandi lay tànn moom lay def la ca gën a nekk ak woyofal ci nit ñi moom lay moom lay def loolu day war a yërmande gu mu am ci nit ñi yërmande ju mu am ci nit ñi mu wax ne lu dul nag loola doon ak moy bu dee ak moy moom da koy sori lool waaye bu dee yaar la yooyu daal lenn doonu ci ak moy te mën naa def lii mën naa def lii la ca gën jàppal yi gën caa woyof moom lay def mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mustafayul boppam mustafayul boppam xanaa kay ñu xëtt ñu xëtt war may yàlla boobaa bu fekkee am na daan yu ci war a tege moom dana ko teg ci ñu ko war a teg Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom it wax ne mësuma gis ñu yóbbu ci yonente bi lu ñu war a àtte te àtte ba li ñuy tudde xisaas war caa am moy ku tooñ nit ñu war koo def lam def kam tooñ mu ne saa bu loolu masaana am rek yonent bi da daan xiirtal kiñ tooñ ci mu jéggale ci mu baale da daan xiirtal ki tooñ ci mu jéggale ci mu baale maa raaytu nabiya sallallahu alayhi wa sallama rufi'a ilayhi shay'un fihi illaa amara fiihi bil kon loolu lépp day wane yërmande ju mu amoon ci ay saxaabaam lépp lu muy tànn la ca ëpp ak jàpp ndal gën caa woyof ci ñoom lay tànn te lim leen di xiir talit mooy di baalante bokk na ci luy wane yërmandeem ci xeet yi ci liñ wax ne ak yombal akuk jàppan akuk jàppandi la leen bëggal gis nanu bi ko yàlla joxe julli nin ko xame lim bi gënoon naa bari lool waaye yërëm gu mu yërëm aw xeetam moo taxoon muy ñaan ñu di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi yàlla di ko wàññi ba mu agsi ci juróomi julli yi loolu day wane yërmande ju ma amoon ci aw xeetam bokk na ci sax yenn yenn jaamu yàlla yoo xam ne daana ko bëgg a def waaye ragal bu ko defee far ñu farataal ko ci xeet yi te buñ ko farataalee ci ñoom mën naa am mu diis ci ñoom ba far sax mu bàyyi lu mel ne naafila naafila yi weeru koor di ko def ci mbooloo loolu tàmbali na ko ñaari fan waaye daal di bàyyi mu xamal leen ginnaaw bi nag ne li tax mooy damay ragal bu ma ko tàmbalee ngeen ànd ko ak man bu yàggee yàlla farataal ko ci yéen te kon mën naa diis ci yéen lu mel noonu day wane yërmande ju am ci ay saxaabaam yu mu am ci aw xeetam bokk na ci li yoone yërmande jooju xew-xew boobu nu xam ba mu nekkee ca jumaa ja mook saxaaba yi am ku ñëw ku xamut lu xew jullit la nag waaye xamut lu xew daa dëkk ca kaw ga bi ñëwee dugg ci biir jàkka ji aajowoo tuur ndox rek daal di wëlbatiku rek di tuur ndox ci biir jàkka ji biir jumaa ji saxaaba nar koo songu mu ne leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu def li muy def ba noppi mu woo ko ndànk nag ne ko ah fii lu mel nii taxu koo jóg fii kët julleeg jàng alxuraan ak yu mel noonu moo ko tax a jóg wax ak moom waxin wu nooy wu wu teey wax nañ ne sax bi mu jaareek moom foofu mu xool ni mu jëflanteek moom ak ñee ko naroon a song dafa wax sax ne yàlla maa ngi lay ñaan nga yërëm ma maag Muhammad mii te bu ci boole keneen <laughs> mooy yi ma doon bëgg a song ñoom bu leen ci boole yonente bi ne ko ah yaa ngi xatal yaa ngi xatal nag lu yaatu yërmande yàlla nag moom bu ci bu ci génne kenn mën ngaa ñaan yërmande waaye nag bu ci génne kenn mën ko ñaanal sa bopp mën nga ma koy ñaanal boo ko ñaanal gaañ yi itam nag bu leen ñaanal moom ñu bañ leen a yërëm ndax yàlla yërmandeem yaatu na waaye loolu day wane rek moom it moom yërmande ju ma amoon ci aw xeetam yooyu ay misaal la ci yërmande kon ku doon njiit itam war nay yërëm ñamu jiite yërëm leen nag mooy lépp lu leen di yombalal leen ko moom ci boppam sax dafa ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan ku am lu mu jiite ci mbirum jullit ñi te yërëm leen maa ngi lay ñaan nga yërëm ko waaye ku am lu mu jiite ci mbirum jullit ñi te tar ci ñoom ñàkk leen a yërëm maa ngi lay ñaan yow it nga tar ci moom ñàkk koo yërëm kon yërëm euh, aw xeetam yërëm ay saxaabaam loolu bokk na ci nim doon doxale ak ñoom te képp ko doon kilifa itam képp ko doon jiit war ko caaroon bokk na ci nim doon ànd ak ñoom nag mu woyof dafa woyofoon ci seen biir dafa woyofaloon boppam woyof gi yàlla ko ko digal waxfid janaaxaka lil muminin waxfid janaaxaka liman ittabaxaka min al muminin yàlla kon moo ko digal mu woyof waaye nam ku ko digalee it nag noonu la ko defe bokk na ci liy wone ak woyofam ni nu ko xamee bu masaana nekk ak saxaaba yi cib jotaay du ràññiku ci seen biir du ràññiku day mel ne kenn rek ci seen biir bu fekkee nit ñi jiitu ko sax ba toog bu ñëwee day seet fu gën a yaatu rek mu toog fa waaye du jàpp ne moo war a toog ci béréb sàngam ba ku ñëw xam ne kii mooy kilifa bi bu ci seen biir bu gan sax mën naa bañ xam ne kii mooy kilifa bi ndax woyof gu mu woyofoon ci seen biir woyof googu bokk na ci ne da daan ànd ak ñoom buñ dee liggéey buñ dee liggéey day ànd ak ñoom bokk ca liggéey ba waaye daawut toog joxe ndigal rek toog waaye da daan ànd ak ñoom bokk ca liggéey ba ba moom it bu gan ñëwoon sax mën naa bañ a xàmmee ne kii mooy kilifa gi ndax li ñuy def lay ànd ak ñoom di ko defandoo ñoom rek bokk na ci liy wone woyof gi mu woyofoon ci seen biir loolu nu xam te muy ne nit mas naa ñëw ci moom koo xam ne xëy na ay buur la xamoon ak buur fi ko nit daan teg niñ ko daan ragale yonente bi kilifa gu mag boo xam ne xam na ne moom it ay nitam teg nañ ko fu kawe mu jàpp ne rek kon daal li ñuy jëflanteeg buur lañu jëflanteeg moom mu ñëw di wax ak moom di di di di di di di tiit tiit ñemewut mun ta mu ne ko waxal rek waxal rek man doonuma lu dul doomi soxna su nekkoon fii ci démb bi fi lekk ay seel mooy rek wane ne kenn laa ci nit ñi rek kenn laa ci nit ñi ak soxna su yam soxna yépp rek mooy sama wayjur waxal waxal nit laa rek kon loolu day wane woyof bu mu woyofoon ci biir ci biir saxaaba yi ci biir ay àndandoom ci biir ñi mu jaboote woon woyof googu ci la demee ba nit daana am soxla nit koo xam ne sax day doon koo xam ne du ku ñàkkal solo lay doon ndax dañ daan mën naa doon sax ab jaam booba jaam am na ab jaam sax manoon na koo jiital di ko doxloo dëkk bépp ngir soxla su mu am te yonente bi day topp ci ginnaawam rek ba ba soxlaan di faju du du dëppal boppam te soxla sa fajuwut loolu ak woyof rek lay wane ki gën ñàkk solo ci nit ñi bu amee soxla mën na koo jógloo mu ànd ak moom ca soxla soosa lu mu sori sori ba soxla sa faju mu door a dellu waaye du du ko xeet du jàpp ne euh, weesu na foofu moom waaye day ànd ak moom ca soxla sa ba mu faju loolu luy wone ak woyof la woon ci moom sallallahu alayhi wa sallam am na leneen it ci li mu daan jëflanteeg saxaaba yi ay àndandoom mooy li ñuy wax nag diisoo da daan diisoo ak ñoom da daan diisoo ak ñoom da daan nangu seeni xalaat itam ñaar yépp a daan am léeg-léeg moom mooy sàkku ci ñoom ñu jox ko xalaat loolu mooy diisoo waaye léeg-léeg sax du ko sàkku kenn ci ñoom rek mooy ñëw jox ko xalaat waaye dana ko nangu kon ñaar yëpp a daan am loolu misaal yu bare bare bare am na ci yi wone ne ku daan diisoo ak ñi njaboote la ay saxaabaam waaye ku daan nangu seeni xalaat la it diisoo googu itam yàlla ku ko digal yàlla moo ko ko digal waaye defe na ko tam ku ko digale moom it laaya ji ñu waxoon ci ginnaaw fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum wala kunta faddan galida alqalbi lan faddu min xawlik li ci topp mooy faafu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fi l amr kon na ngay diisoog ñoom fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin kon yàlla ku ko digal waaye nam ku ko digal it la ko defee ba tax sayiduna abu hurayrata radiallahu anhu wax ne mësumaa gis mësumaa gis ku dàq diisoog ñam àndal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa raaytu ahadan akthara mushawaratan li ashaabihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam misaal yi bari na misaal yi mu doon diisoo moo xam diisoo la moo xam dañ ko jox xalaat rek mu nangu ko bokk na ci ci badar xare badar xare badar xam nañ ne yonent bi daa digle woon ñu dogale ñu dogale Abu Sufyaan ñu yoroon marchandise waa Quraysh waaye moom ba mu ko yëgee mu teggi ba mu teggee nag léegi kon ba noppi waa Quraysh waajal ab xare kon ba muy jóg jógutoon ngir xeex waaye ab xeex moo ko ca fekk moo taxoon ñuy diisoo saxaaba yi bi ñuy génn ñu woon ngir xeex waaye léegi lu lu waral xeex dab nanu mu bëgg xam ko nag luy seen xalaat ndax ba ba muy digganteeg yéen rawatina ansaar yi mooy bu ma ñëwee da ngeen ma aar da ngeen ma fat waaye loolu xëy na bu ma nekkee ci biir dëkk bi xëy na ngeen ci jublu woon dama leen di laaj daal ba xam waaye ñu xamal ko ne fu mu mën di doon rek moo xam biir dëkk bi la moo xam fu mu mën di doon boo doon xuus géej gi sax danañ xuus ànd ak yow bokk na ci ba tey ci Badr Badr nin ko xamee woon bi mu ñëwee dafa am fu mu bëggoon fu mu bëggoon taxaw moom ak ñi àndal waaye kenn ci saxaaba yi alxubaab ibnul munzir moo ne ko fii nga bëgg taxaw nii ndax yàllaa la ko digal wala xalaat la rek sa xalaat la rek sa xalaat la daal boo jàpp na boo taxawee fii moo gën mooy gën ci wàllu xeex wala loolu yàlla digal la mu ne ko sama xalaat la rek mu ne ko ah kon nag def nangam a gën alxabaab ibnul munzir daa amoon xam-xam ci wàllu boobu am na ci xeex yu bari yoo xam ne da ci jox yonente bi xalaat bu bokkut ak ba mu amoon te ba mu ko defee rek day xam ne moo moo gën a moo moo ëpp njëriñ bi ko alxabaab waxee xalaat bu bees boobu mu fekk si ko ca bàyyi xalaat ba mu jàppoon moom fekk ko loolu lépp ci badri la waaye badri bi mu jàllee itam ba jullit ñi jàpp ñu baree bari ci ñiñ doon xeexal moom it daa laaj xalaat nan nan la ñuy def nan lañuy def ñii ñu jàpp bim laajee xalaat Abu Bakr la laaj xalaat ak Omar ndax ñoom ñaar ci ñu gënoon a sës ci moom ci muskàllaf yi ñoom la ñoom ñaar ñoo gënoon sës ci moom ci muskàllaf ñoom ñaar la laaj xalaat nu ñuy def seen ñaari xalaat yu wuute ku nekk wax ko xalaat mu jël xalaatu Abu Bakr kon mooy da leen laaj xalaat waaye euh, doxalut boppam rek defalut boppam rek la mu gis ci xasot xasot Uhud Uhud moom itam bi bi bi xeex bi naree am mu yëg na Quraysh ñi ngi ñëw da xalaatoon moom toog bi toog biir Madina bañ a génn toog bu ñëwee mu jéem a aar boppam ci biir dëkk bi waaye ñëpp ci jullit ñi daal ñoom génn gënal leen génn gënal leen mu fekk si leen ci loola ànd ak ñoom génn dem Uhud daje fa ak yéefar ba la ca xew xew ci ghazwatul ahzab moom itam bi mu xamee ne ñu baree bare bare ñu ngi takkutoo bëgg koo songu madina dafa dajale saaba laaj leen luy xalaat nun war a def salman al farisi moo ko jox xalaat mu jëfandikoo xalaat boobu moom itam te mooy mu gas mu gas wër wërale madina gas am ci mu yaatu moo xam ne duñ ko mën a jéggi ndax xam na ne mbooloo mi takkutoo moom mënuñ leen a dégg liñ man rek mooy aar seen bopp ba duñ mën a agsi ñoom loolu nag bi mu laajee xalaat salmaan al Farisi moo ko jox xalaat boobee mu jëfe ko waaye ñoom bi ñu agsee kon mënuñoo dugg biir Madina dañoo wër dëkk ba loolu daana am ba nagari mu ngi am sax ay yeneen anam lay amee xëy na léegi ni waaye liñ li ñuy tuddee euh, blocus mooy ñoo munta àgg ci ñoom nga wër leen jàpp ne lu yàgg-yàgg dana ñàkk pexe ba jéem a génn bu jéemee génn nag nga mën a dal seen kaw loolu la ñi doon song si yonent bi defoon biñ ko defee yonent bi xalaatoon na benn kuréel ci kuréel yooyu xalaatoon na neexal ko ngir mu génn ci ngir mu génn ci ñi ko doon fexeel xalaatoon na ko waaye saxaaba yi ñoo ko ci génne Saad ibnu Muaaz ak Saad ibnu Ubaada ñoom la laaj xalaat ñu ñu ne ko déedéet jarut neexal kenn jarut neexal kenn ci xaswatu Xaybar mooy xeexu xaybar xaybar moom jullit ñi ñoo ñëw gaw mooy wër yahud yi mais blocus ba ñu leen defoon ñoom ñoo ko def yoon yi ñoo ko def yahud yi waaye ba tey xubaab ibnul munzir nii nu waxoon moo wax yonent bi ne ko seen garab yi tàndarma yii nañ ko dagg ndax yahud dafa bëgg alal te loolu seen alal ju mag la woon muy garab garabi tàndarma yi nañ ko dagg buñ ko daggee rek dana jeexital ci ñoom ba mën leen néewal doole yonent bi ànd ca moom ñu dagg ca lu baree bari waaye biñ daggee lu bari ba gis ne lañ bëggoon am nañ ko Sayyiduna Abu Bakr ne léegi nañ bàyyi dagg bi ndax li taxoon ñu koy dagg am nañ ko kon mën nañoo bàyyi yonent bi ne nañ bàyyi gis nga lu ci ne day topp xalaatu saxaaba yi radiallahu anhum wa ardaahum ba tey ci xaybar ni ko defe woon ci badr rek dafa bëggoon a taxaw ci benn béréb waaye ba tey xubaab nii ibnul munzir moo ko xamal ne béréb boobu gënut wax ko beneen béréb boo xam ne bañ ca taxawee ci la gën a ci ñoom ba tey taif lu mel noonu am na ca ca xeex ba tabuuk tabuuk yonent bi dafa dem bi mu àggee ñoom doon xeexal dañoo daw dafa xalaatoon jàll jàll waaye bi mu ko xalaatee euh, Seydina Omar ne ko jaru ko jaru ko ndax bu njàllee mën nañ faa dajeek waa waa ruum te ay soldaar su baree bare bari lañu ñu amee boobaa duñ leen mën a dégg liñ bëggoon rek mooy duñ ñu yabati te yabatuñ ñu léegi ginnaaw daw nañ rek loolu doy na nañ mën nañoo dëpp dellu mu ànd ca ñu dëpp ñu dëpp dellu ba tey ci tabuuk bañ demee ba bëgg a dëpp jullit ñi seen seenub yóbbal dafa jeex mooy luñ jëfandikoo amatuñ ko ñu ñaan yonente bi ne ko teeñoo teeñoo rey ci sunu giléem yi maanaam sunu warwaay yi ñoroon sunu giléem yi teñ cee rey jëfandikoo ko mu jox leen ci ndigal waaye Seydina Omar bi mu ko yëgee dana déedéet jaru ko jaru ko ndax buñ leen reyee daañ leen soxla ëllëg te am yeneen yombewut noonu te jullit ñi sori nañ Madina lu leen di delloo Madina seen gileem yi ñu doon war buñ leen rayee lu leen di delloo Madina ne daal nañ dajale ku nekk lim am ci yóbbal lim desee lu mu néew a néew nañ dajale lépp rek buñ dajalee lépp yonent bi ñaan ci yàlla mën na cee def barke buy tax ñu mën cee faj suñu aju ñun ñëpp ba ñuy dellu yonent bi ànd ci loolu loolu lépp day war a nekkoon ci xalaatu day jël xalaatu saxaaba yi benn ñu joxal ko ko seen bopp wala moom mu laaj leen xalaat li am solo nag mooy da leen di laaj xalaat te koy jëfe te koy jëfe ndax am na ñu mel ne dañuy diisoo waaye diisoo ga day mel ne dalal seen xel rek lañ ci jublu mooy daal danañ def ba mën a wax ne diisoo nañu rek waaye nag fasuñoo fasuñ yéenee jëfe xalaat bu ñu leen wax bu wuuteeg seen xalaat lañ fas jàpp ba noppi bu ñu wanee nit ne ko day dañuy diisoo ak moom it bu leen waxee beneen xalaat moom duñ ko jëfe kon day mel ne diisoo gi dalal seen xel la wala sax nga nax seen bopp la gëm loo seen bopp la daal diisoo nan diisoo nañu te dëgg-dëgg nag loolu taxul ñuy wax diisoo diisoo mooy lañ lay jox ci xalaat da ngay jekk ngir bàyyi xalaat boo amoon jël xalaat bu ñu la jox bu bees boo xam ne jàpp nga ne moo gën bi nga amoon loolu nag moom moom la doon def sallallahu alayhi wa sallam diisoo gi mu doon def yi ñu wax yëpp lu ci ne buy diisoo léeg-léeg ñëpp lay diisool waaye léegi day tànn ñeen ndax dana am biir yooyu daa am ña ca am xam-xam dafa am ñu ca am xam-xam ñooña lay tànn diisoo ca ak ñoom léeg-léeg mu doon mbir yoo xam ne day mbiri boppam moom it day tànn ñi ko gën a jege diisoo ca ak ñoom kon ki ñuy tànn di diisoog moom it ki ñuy diisool dañ ko war a tànn ki ñuy diisool dañ ko war a tànn waaye kiy diisoo itam daa war a nangoo bàyyi xalaat bu mu amoon te jël xalaat boo xam ne dafa jóge ci ki mu doon diisool beneen tomb bi may mujje ci nim doon doxale ak saxaaba yi mooy nag maandu maandu yërmande ji ak woyof gi loolu lépp nag du ko yóbbu du ko yóbbee ñàkk maandu du ko yóbbee ñàkk maandu dana maandu ci àtte waaye dana maandu itam ci dénkaane buy dénkaane yëfi mbooloo mi dana ca maandu ku ne xam na xew-xew boobu jigéen joojee sàccoon bañ jàpp ko war koo teg àtte bi waaye ñu ne daal kilifa la ñu ne kilifa la kon daal nañ fexe ba yónnente bi bañ koo teg àtte bi ñu ne nañ seet nañ seet daal ñi yónnente bi gën a bëgg ñi ko gën a jege nañ ci jéem a jaar ci kenn kooko wax ak moom ndax mu teggil ko àtte bi ñu xool gis ne Usaamatu bnu Zayd ci ñu gën a jege yonent bi la ñu gën a bëgg moom yonent bi saa sallam ñu jaar ci moom Usaama daal di dem di jéem a ñaan yonent bi ngir mu bañ a teg soxna soosu àtte bi ñu war a teg ku sàcc waaye li ñuy bëgg bëgg bëgg Usaama bi ko ko waxee dafa mer dafa mer Usaama yow àtteem yàlla yow a jéem a tiinu ñu bañ ko doxal nga xam ne Usaama am na nett li nettali ne euh, dane ak a neexoon ma bañoo ak a neexoon bis boobu fekkutoon ma doon jullit sax nga xam ne duñ ko limaale ci sama ci samay ci sama yëf daal ndax ku doon jullit dañuy far la jiitu lépp ndax tàngoor yu yonent bi tàngoon daan na ko Fatima mii di sama doom te moom rek nekkoon doomam jamono yu doom jigéen joo xam ne moom it xam nañ ne moom la gënoon bëgg ci doomam ndax moom rek sax moo ci doon daanaka moom la fi bàyyi moom rek bàyyi ginnaaw mu ne Fatima mii ci sama doom bu sàccoon damay dagg loxoom wan ko nekkoon kon maandu gi mooy ñëpp a yam ci moom lu mu yërëm yërëm nit ñi bu atte bu yàlla wàcce jotee dañ koy teg kañ ko war a teg nit du ko jege-jege ba man koo wàcc looloo la loolu day war a maandu maandu ci wàllu googu waaye ci wàllu buy dénkaane dara itam da cay maandu mooy day seet ka ko man day seet ka ko man mu dénk ko ko waaye du seet ka ko jege walla daal yeneen waaye ka ko man lay seet Abu Dhar al-Ghifari saxaaba saxaabi bu baax a baax la bu dee ci wàllu mbaax bu baax la mas naa ne ñëw ci yonente bi ne ko dama bëgg nga takkal man ndomba tànk sàngam bu doon légani dañ naan nga def ma gouverneur walla nga def ma préfet préfet yonente bi ne ko ah yow kat li ma bëggal sama bopp laa la bëggal li ma bëggal sama bopp moom laa la bëggal te nag yow dafa am ak néew doole gu ne ci yow ci wàllu jiite jiite moom mënoo ko dëgër gi mu laaj amoo ko moo tax duma la ko def duma la ko def duma la ko def ndax li ma bëggal sama bopp laa la bëggal te jiite nit ñi day loo xam ne ëllëg dañ dañ koy laaj ku ko doxale dam ko war a doxale boobaa njariñam lay doon bu ëllëgee mooy bu àllaaxira waaye ku ca doxe neneen nag gàcce la koy jural ëllëg ak rëcc moo tax li ma bëggal sama bopp laa la bëggal moo tax duma la duma la defal li nga bëgg loolu lu waar la loo xam ne lu xóot la itam ci suñ jamono ji ku ko waxoon nit ñëw ne ko dama bëgg nga def ma préfet voilà ah, yow kat li ma bëggal sama bopp laa la bëggal moo tax du la ko def ndax bu ma la ko defee dan ci mën a am daani yàlla te yéenewu ma la ko yéenewu ma la ko moo tax lu mu daan dénkaane day seet ka ko man waaye du seet ki ko neex du seet ki ko jege day seet rek ki ko man da koo wax sax ndax moom moom loolu lay def waaye loolu lay dénk jullit ñi itam dafa wax ne képp kuy kilifa buy dénkaane mbirum nit ñi mu dénk ko nit te xam ne am na keneen ku ko ca gën a yey nee na ku def loolu war na yàlla war na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ni mu doon doxe la digle itam kilifa yépp di ko doxe mooy ku ci dénkaane dara loo xam ne mbirum mbooloo mi la mu dénk ko ku ko man te bañ koo dénk rek ku ko neex wala ku ko jege walla daal koo xam ne leneen a tax mu dénk ko ko yii daal bokk na ci yi nga xam ne yonent bi daana ko doxe ak saxaabaam te buñ ko doon tënk rek dañ naan euh, li ko lal lépp rek mooy di leen sabablul di leen fàggul lépp lu leen di jariñ ci seen àddina ak ci seen àllaaxira loolu nag mu jaar ko ci yërmande jaar ko ci ak woyof jaar ko ci diisoo ak ñoom waaye nag lépp ànd ak maandu maandu lu ci ne mu teg ko fa mu war a tege bañ a xool ku ko neex bu dee àtte wala muy dénkaane sëñ Abdou Lahad loolu daal foog naa ne mënees na ko tënk ci tomb bi sëriñ Ahmad mënees na ko tomb ci mënees na ko tënk ci tomb bi foog naa ne maa ngi jégalu ñëpp wasalaamu aleykum wa baax a baax jaajëfal euh, ci waxtaan bi ñuy leeral ak jotal bi nga xam ne jotal nga ko yaakaar naa mbokk bi nga xam ne ñu ngi tànn tomb waxtaan bi dina ko jox lépp lu ci seetlu rek am nañ ci lu kawe njort képp ku teewlu rek jëlee nga ci njariñ njariñ bi nag lenn rek ci lay dellu mooy ñu xam ne yonente bi sallallahu suñ borom wax ne seen royukaay la loolu day firndewu ci anam yépp ndax suñ borom daf koo waajal def ko mu nekk nit ku mat koo xam ne foo ko natt rek da koy fees dell mat googu moo tax mu mat njiit ba ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole loolu mu nekk ci ñu nekk ay njabootam mu yëlif leen muy ay saxaabaam xam ne ñoo ñëpp gëmoon te topp ko jëflante bi nga xam ne moom la doon jëflante ak ñoom daa nekk exemple boo xam ne ku yàlla dénk kenn ak ñaar ku nekk rek war nga caa dellu di ko jàngat bu baax te lii ci roy ndax doy na sëkk delluwaay ni ko sëriñ bi junjee ci waxtaan bi Euh, ci melokaan yooyu nga xam ne moom la daanele sànq ci li muy tënkat mooy njaboot ku leen jiite ku nekk daa am loo xam ne mënul koo ñàkk ngir sa digg ñoom rafet waaye li nga bëgg ñoom tamit mu mën a nekk yoon wa nga leen di jaarale ñu mën caa jaar te loolu dara jiituwu ci nga ëmbal leen cofeel ak yërmaande koo xam ne dana tax ba ñu ñeme la waaye tamit ñu bàyyi la xel bàyyi la xel koo xam ne danañ xam ne loo leen wax rek ci ndigal wala loo leen tere rek seen njëriñu bopp la ñoom waaye du yow da bëgg lu la neex rek wala ngay def rek ngir sa bakkan te loolu suñu borom moom moo ko seedeel xarisun aleykum bil muminina raufun rahim yërmande jooju moom yërmande kese la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande jooju daanaka boo xoolee moo ëmbaale yi nga xam ne moo ci des yépp mooy wooyet nga xam ne wooyetoon na ko ci seen kanam te nekk ku mag moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne daa am sax nu ñuy wax ak moom doo ñëw rek di ko wax ak moom yëkkati sa baat wala nga koy wax woowee comme ni ngay woowee keneen ku dul moom loolu suñu borom daf koo tere woon saxaaba yi la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil xawli ka jahri ba'dikum li ba'd loolu ànd ak loolu lépp nga xam ne ceeb bi nga xam ne saxaaba yi waroon nañ ko koo jox ñu ngi ko doon jox ba mat sëkk te suñu borom digal waaye teewul moom du wane ne am na cër boobu ci seen kanam day day wàcce boppam ci seen kanam ba ñoom ñëpp ñeme ko ba wax nañu sax bu nekkee ci jotaay boo xammeewul ba ñëwee doo xam moo ciy kan ndax day nekk ci biir nit ñi toog seen biir du am lenn lu koy wutale kon woyof boobu tamit euh, nekk jikko bu am solo boo xam ne moo yërmande gi moo laytaay leen ci des lépp ci ni ko sëriñ bi leeral moo andi daawut xeebal kenn xalaatam lu muy dugg lu mu mën a doon rek dana ci diisoo ña am xam-xam te wàllu googu xalaat dañ ko ciy jox tamit dana koy jàpp te dana ca jëfee ba nga xam ne moo jàpp moom la jàpp moo ca gën a jub te loolu tamit mooy doxal ab ànd ndax euh, kilifteef yàlla moo koy def ku mu ko jox rek jox na responsabilité waaye taxul nag nga moom nit ñi loolu suñu borom sax wax na ko yonte bi lasta alayhim bi musaytir li muy doon dana ab yàlla nee na ko moomoo nit ñi ba euh, di leen di jël sa bopp di ko teg seen kaw wala leneen di jaaroo fu la neex da ngay jottali li ma la digal nga jottali leen ba tax na xeebul woon xalaatoo ñi nga xam ne ñooy ak njabootam wër di ay saxaabam bu diisoog ñoom ku ne jox sa xalaat la ca gën a jub dana ko jàpp jëfe ko wakkiilu ci yàlla ñi nga xam noonu la ko suñu borom digale fa iza azamta fa tawakkal ala Allah yooyu yëpp boo ko boolee nag day nekk benn royuwaay modèle boo xam ne daa mel ne jamono yëpp soxla na ko rawatina jamono ji ñu toll mooy ku njaboote ku nekk rek tàmbale ci nit ci biir këram ndax euh, mën naa gën a yaatu waaye tàmbale ci biir kër gi tàmbale ci ab dëkk tàmbale ci am réew tàmbale lu mu mën a doon rek kenn ku nekk war nga jël misaal ci loolu noonu ci jox cër li nga xam ne ñoom la la yàlla booleel uuf leen yéem leen waaye nga di leen jaar la yoon te mooy li seen seex naa doon tëjee sànq mooy nga ànd ak fulla ak way bu ma sëkk nag ci ne ñii kat euh, maa leen yilif kon seen la mën la ko yàlla lay laaj nu ma man ci defal leen ko ak rafetal suma diggam ñoom ak wooyof ak yërmaande la lépp dana mat waaye lu tee nag jaar la yoon gi tamit nga am ci way bañ koy bañ bañ bañ bañ tegu si yoon te loolu nag euh, euh, melokaan yi jiitu moo koy moo koy moo koy laytaay ndax am na nooy moom boo ko bëggee sax day bañ ndax euh, day jàpp ne danga nga metti nga am noo mel rek di ko jéem a digal waaye du njariñ ma tax kon ñu jël misaal bu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu demee noonu kon ngir bañ a gën a guddal rek ñu xam ne royukaay yi suñu borom wax ne te bi moom la royukaay boobu mën nañ koo jàngat ci fànn yu bari waaye lii lenn la ci te daayira bi ni ko baaxoo def gàmm bu nekk rek day jël benn ci wet yooyu lii nag yaakaar naa ñëpp ko soxla ndax ni ñu ko waxtaanee woon daaw ni nga xam ne moom la yëlitoo daan doxale ci biir këram waaye daan doxal gan ñu waxtaan ci ñi nga xam ne mooy saxaaba yi mooy ñi mu yëlikoon te xëy na du ne ak ci digganteem njaboot wala kër moo leen boole loolu day gën a yaatu kon ba kenn ku rek mën cee gis boppam ñu ñaan suñu borom mu defal ñu tawfeex ba ñu mën a jël jikko yooyu ci moom ba kenn ku nekk nga mën cee dox doxin woo xam ne euh, danga ci koo at mu nekk saa yi gàmmoo rek nga am jikko boo jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ca góorgóorlu si kéem lay kàttan ñaan yàlla mu dimbali ñu ci ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp ba njariñ yi fi bi sotti léegi ñu mën cee taataan te jariñoo te suñu borom defal te yiw woo xam ne danañ ko danañ ko dencal ku yàq eggul santaal sëriñ Cheikh Oumar baax ci jottali bi ak laallakum tafhamuuna annana kunna nataxaddasu an irrasuli sallallahu alayhi wa sallam bayna ashaabi fi l aami l maadi kaana alxadis an muamalati rasuli li ahlihi li azwajihi wa hada al aam kunna nataxaddas an muamalatihi li ashaabihi wa dakarna baad baad al muwaasafat wa baad al al axlaaq allati kaana yattasifu biha wallati makkanathu min attaamul ma ashaabihi bi ala ahsani wajhin wa akmali wa nujaddidu shukrana lakum ala tashrifikum iyana bi xuduri hada al ixtifal jazakum allahu xayran wa shukran lakum wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ bi kon ñu ngi wàcce foofu kàddu yi kon ñu ngi ko xamee kon des ci guddi gi lépp dañ koy wéyal kon ci dundal ko ni nga xam noonu la ko sëriñ bi daan dundale te sant ñu ñu di ko wéyale noonu muy durus bi dañ koy wéyal ba fajar incha allah waaye ñetti kuréel yi nga xam ne tamit ñooy fanaane guddi gi ñu kuréelu jas bu xulu kuréel mawaaxibul naafi ak kuréel muqaddamatul amdah dañuy daal di tàmbale léegi ci diggante bi nag waxtaan yooyu bi danañ ko fi jàng ñaan ñëpp rek ñu ànd ak teewlu te fas yéene ànd ak mbokk yi ci ñi nga xam ne ñoo yor dëkk di jàng ñi nga xam ne ñooy def seen awraam nekk ku nekk ci yooyu tamit nga teewlu ngir mu ànd ak dal ba li ñu fi andi mën cee jariñ bu baax baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah